أعوذ بالله السميع العليم من شر إبليس الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على عبد الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه شاوي الرضوان والتمكين mbokk yi nga xam ne ñoo ngi topp seen naafile bis bi ci fi ci sen tele bu mag bi di fex TV. tay ji ñongi ci guddik fukel gi ak euh sopp nañ ku ci julli ñaari rakka bu ci nek fatiha ben yon ngay def ngay def aqul qul huwallahu ahadun muy suratul ikhlas juromi yon de 5 fois. neñu ko ko def des na ca tabaxal lu reey ca aljana nak xamul moy pale des na ko tabaxal pale bu maga maga maga maga ca aljana Euh, pale boo xam ne dana am juróom-ñaari néeg yoo xam ne lépp wurus lay doon juróom néeg yoo xam ne lépp wurus lay doon muy muy lu taaru te loolu nag jullit bu ne war na ko bëgg te jaamu yàlla rek a koy maye. Euh, juróom-ñaari néeg benn bu ci néeg yooyu tamit benn bu ci nekk dana am junni lal lal bu ci ne soxna dana ca nekk te des na ko ca bindal tuyaabay ko wor ñaar fukki at ñaar fukki at nga wor ko ak ku julli junni raka te ñaari raka yu ñu nang dong aljana moy payam na nak junni raka. seen hikma bis bi moy nit ki lum bëgg num bëgg nit ñi def ko ko nak ko defé bo yëkëte sa loxom ndey jor ne faaluma kenn bay bo nga yëkëte bu càmmoñ ba ne kenn wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh